class, what is the day today? Yes, miss. Today is Saturday, the 28th of May 2016. Yes. Okay, class. Today, we'll deal with the text. It is the importance of English language in different fields. Okay, why English important? Yes, Yasin? You need English in medicine and technology. Good. Somebody else? Yes, Pavlai? English International Organization. Very good. Good morning, Mr. Njai. Good morning, Mr. Sir. How are you? I'm fine. Okay, class. Listen to your supervisor. Students, I have one information for you. Some of you have no birth certificate, so you've been out. It's necessary to have such a paper if not, you want it for your exam. Nothing. and they are after I go out. Thank you, Mr. Jai. Thank you, Mr. Sir. moi et la délégation qui, qui m'accompagne ce soir. Donc, euh, je veux nommer M. Pape Sanor Ndiaye de Bouikouli, M. Elage Maodo de Mboulokten et nos responsables d'Andiayen Serach, Abdou Senjouf est derrière, M. Nal Sille et Diasefal, et tous les responsables que nous avons trouvés ici. Euh, M. Nyan, M. le principal, je voudrais particulièrement vous féliciter nous, en tant qu'autorité politique, mais aussi en tant que parents d'élèves, nous sommes une fois encore très, très, très rassurés de la qualité des enseignements que vous dispensez au niveau du CEM de, de Et nous avons eu les échos. Nous avons ici les échos des résultats que vous avez ici au niveau du CEM. Donc, pour vous dire notre très grande satisfaction par rapport à ces résultats-là, mais aussi par rapport au management au sein même de l'établissement. Donc, j'aimerais quand même vous féliciter, vous encourager, vous et les enseignants qui nous accompagnent. C'est Michel Djigi Badiara, principal du CEM de Ndien Sirach. Euh, nous sommes euh, Michel Diouf, qui est ci feetu de yi ndax wax dëgg yàlla amoon nañu difficulté ak au début parce que nous avons ko wax allocution nous dañu soxla présence population bi ak autorité ci suñu wat ngir ñu mun échanger ak ñom ci suñu difficulté di mëna sét seet nuñ ciy te discours lolu mo ci feeñ lolu lañ ci gis gis nañ mu woné vraiment disposition pour jappalé école bi pour and ak ñun dox ci suñu difficulté su ko defee même bu yalla déful sax ñu am solution day doon lo xamni ça nous va droit au cœur ñing ko ci sante diko ci gërëm difficulté école nak nim ko waxé rek. Euh, gënuñu ko xam fi mu nekk nii on est au vingt e siècle école bi war na soxla connexion internet parce que fii ñu toll nii njàng fi mu toll kenn mënatu ko def te internet dikkul te xale yi bu ñu naree di jóge fii di dem ba xombool pour se connecter à internet di fay foofu peut-être cinq cent en trois francs par heure dina xaw a metti bu ñu amoon connexion internet ci école bi dana gën a dana gën a dimbale soxla nañu tamit lu demee ni vidéo projecteur parce que ni ma ko waxee njàng mi fi mu ne moo toll foofu comme amuñu laboratoire amuñu dara léeg-léeg danañu permettre nga mun a jël yenn euh, document pédagogique yi di ko projeté xale yi di ko mun a gis yàggul dara tamit xëy na bërki démb la ñu yàlla dimbale ba jënd nañu benn photocopieur seconde mais mais comme niñ ko waxé comme ñi ngi nisar am ay classe seconde buñu mënon mënoon am aussi benen photocopieur dinañu mëna a xamna dal ci li jamp ba jamp lool moy difficulté yi nga xamni ni ku ñu ci jappalé mom danañu dimbale trop ci liggéey bi encore une fois ñi ngi lay sante di la gërëm ci sa taxaway te di ñaan yalla tamit démarche bi nga jël pour école bi jëm kanam yalla na ci yalla jappalé Dieyène Sirakh nous avons un CM qui compte 14 classes pédagogiques environ, si ma mémoire est bonne, 824 élèves. Nous avons 4 classes de 3e, 4 classes de 4e, 3 classes de 5e et 3 classes de 6e. Donc euh, voilà un peu euh, les effectifs au niveau de l'établissement. Et je rappelle que l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, nous avons envoyé quelque chose comme plus de 180 élèves à Khombol. 180 élèves, c'est au moins trois classes de seconde. Donc voilà un peu les données techniques que nous avons eu à mettre dans le document qu'on a fourni aux autorités pour bien leur montrer que Nyen Sirach a besoin d'un lycée. Parce qu'il n'est pas évident à chaque fois de trouver un hébergement pour 180 gosses au niveau de Khombol. Donc voilà donc un peu l'aspect technique qui a été mis en avant

waaw am nañu yaakaar bu baax te yaakaar na ne yàlla mi nga xam ne mooy defe lépp incha allah yaakaar na ne dinañ de dana ko jàppale incha allah am na nañu ci yaakaar bu rafet alhamdulilah Macky itam ñoo ngi koy jàpp bu baax ndax ñun suñu wëllëre daajaat ci moom ci sëñ Mbàkke soxna waaw am na lu mun waxaan ci loo moom itam noo ngi koy déglu yaakaar naa ne sunu borom dina ko gën a dimbali waaw waaw ci lii ndax moom itam doomu réew mi la eh, te wax dëgg jàmbaar la lool te itam liggéeykat la te it ku jub la moo tax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine yëpp. ah ñu ngi koy sàkkul ay ñaan bu baax ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal bu baax sunu borom gën koo jàppale gën koo dimbali yàlla naga moom boppam waaye daal ñëpp ngi koy ñaan te moom moo wax ne lu ma jaam ñaan rek ma may ko ko walla war na ngi koy ñaanal wa tabaarkàlla yàlla noonu daal gune itam noo ngi leen di digg rek ñu gën a góorgóorlu te jàpp ko ab tàmbali nag day metti waaye bu jeexee rek alhamdulilah ci mujj tey moom dañ fi ñëwoon doon ziar si sëñ ma silla silla bu njëyeen sarax bokk ci mu xaddam mi sëñ Mbàkke soxna loo yi nekk ci dëkk bi ni xaratu nag président de la république li waral loolu mooy diggante bi doxoon diggante président Macky Sall ak sëñ Mbacke Soxna Lo ñu jàpp kóllëre googu ba léegi di kilifa ci dëkk bi di sëriñ ci dëkk bi nag ñu ñëwoon tey biñ jógee ci foyer élèves yi ñëw di ko ziar loolu lépp nag ci président dañ ko jànge parce que moom dafa jox cër kilifa diine yi dafa jox aussi cër kilifa aada yi. loolu moo tax ñu topp ci tànkam rek fépp fu dem rek luñ fa mën a yóbbu it bu fa kilifa diine nekkee wala kilifa aada nekk fa bala ñoo génn gox ba dañuy dem ziyaari ko moo tax bi ñëwee fii ci manifestation élèves yi ah sëriñ bi nekk fii wala paw bala ñoo génn dëkk bi ñëw ziyaare ko parce que loolu ci président nañ ko gisee comme nag dañ koy liggéeyal di rey ci moom tànk yam aw rek nañu aw Euh, di ko di sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que taxawaay bi nga xam ne aussi taxawoon nañu ko taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko président parce que lay ñaanal président sax te du ko gis lay ñaanal président di ko gis kon nag moom ñun aussi ñi fi toogal président yaakaar naa ne cër buñ ko jox rek war nañ ko koo jox kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam. ba yéene ji nga xam ne am na ko ci président de la république am ko ci ñun suñ boroom def ko Lol dal, mom man nañ ko séré fi ñu tok dal xamna né mom président de la république mom fu mu tollu mi ngi koy defal ñaan fu mu tollu mi ngi koy defal ñaan té lolou nak ci sëriñam ba lako ko jëlee sëñ Mbàkke soxna lo kon ñu ngi koy sant bu baax diko ko lu baax té ñun ñi fi nekk duñ ko tangam lu ci dara parce que nak ñun ku té président rek ñu téel kon ñu ngi koy sant bu baax diko ko wax assalamu alaykum wa rahmatullah xamal leen le dal ci turu jeune département bi yépp ñoom ñëpp su ma teewee daanaka teewel naa leen ñoom ñëpp. ñu ngi bokk ak yow tiis wi. bokk ak naqar wi. xam ne kii fi jógee. Euh, ñun ñëpp ñoo ko bokkoon. parce que yàlla def na man miinan naa ko bu baax a baax. ñëw naa fi ay yoon yoon yoon di ko si ak ci gàmmu gi. Euh, muy koo xam ne nii ko oyof la woon tamit. aman jàmm ak nit ñëpp. Ah, ba tax na aussi ñu am yaakaar ne suñu borom dina ko teeru ci àjjana yi gën a sawe ñu ngi ko koy ñaanal ci barkeeb sëriñ Mbàkke Madina am nañ ci yaakaar bu wér a wér parce que vraiment ku ko xam daal ci diine nga ko xam ci jëflante lu baax ak nit ñi aussi nga ko xam kon nag bu fi wàññi mën nañ rafet njott ci moom ah yow it ñu ngi la koy jaal comme ni ma ko waxee léegi rek parce que yàlla dafa def ne ñuy bokk ci yëngut ci département bi ngay suñu xarit suñu wëlëre tamit loolu moom ñëpp seere nañ ko euh, moo tax ma ne lu mu xat xat xat xat xat moom mënuñoo yem ci woote rek mais dañuy ñëwal suñu bopp bokk ak yéen tiis wi di ñaan suñu borom mu may leen xolop muñ xëy na li ñuy wax rek moom àdduna moom ak li moo ànd moom waaw li moom ànd waajur yi moom dañuy gunge rek waaye mënuñoo nekk ak moom ba faaw waaw ah, ko defee daal lay xamal na daal nañ la téewoon bu njëkk yu góor gi ne noonu lañ la téewaate daal nu ko raw sax eh, ubbil nañ la daal suñuy bunt lépp loo xam ne di daal ittala yu jëm ci ñun bu ñu ci ñeebul waaw waaw ñu ngi bàyyi kër euh, xel tamit kër gi bu baax a baax a baax a baax di la bàyyi xel yow it parce que sa njàmbaar ci parti bi moom kenn dootu ko werante parce que ba yëfee métti maanaam 2012 ba ñuy demee yow premier tout da ngaa gañe sa bureau loolu moom ñëpp mën nañ ko seere te booba daa daanaka gañe bureau yombut parce que booba ci opposition nañ nekk nga dem gañe sa bureau premier tour suma ma jumut président Macky Sall ñëw na ci dëkk bi. voilà kon kay xëy na kon fii moom daanaka euh, dëkku APR la dëkkub président la te loolu nag lu bu ñu fi amee loolu nag yen yéen a tax kon nag lii bu xewee ci kër gi nag ñëw gi mënta ñàkk di bokk ak yéen tissu di ñaan suñu borom gëjal ko fi góor gi fi jóge daal yàlla na ko sëriñ Touba teewu suufu Touba daal yàlla na sedd ci kawam. te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax baax sant nañ bu baax gërëm la nag sa taxawaay moom ci parti bi ñëpp rafet lañu ko li ci des kay parti bi moo la deseel waaw parti bi la deseel de mais yow li nga warloon ak parti bi def nga ko parce que militant ka li ñuy xaar ci moom mooy respecter discipline de parti ba pare am mbooloo mbooloo mi nag nañ koy natte mooy su élection ñëwee fa nga dëkk nga gañe ko te yow 2012 ba léegi fii moom daanaka doo ko xëcc kenn kon kay xëy na ñun ñoo la desel parti bel desel waaye nag suñ borom moom bari na sutura nañuy ñaan rek ah suñ boroom yokk xéwal yi ba yéene bi ñu am ci yéen it am ko ci dëkk bi suñ borom man ko àggale te am nañ ci yaakaar baax a baax suñ xol sedd na ci yow baax a baax a baax a baax a baax baax sant nañ baax di sant baax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. mooy sa di am mbégte si seen teewaay fi tey si njane a ngeen ñëw jali si sang bu tedd bi nga ne fi bàyyi ko di suñu wayjur nekkoon kon jambar joo xamante ne itam wax dëgg yàlla a kenn ku ne xam nga ak tabam ci réew mi ndax fu nekk la nit da bàyyi ko di nyo di ko diis ay soxlaam a mu cay jàpp te yàlla rek tax ak yonent bi ak sëñ Tuubaa te yàlla du def itam képp ku mos a taxaw ci biir kër ko say soxla def na ca la ca war ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad bala nga bëgg nga am ko kan loolee dañ koy sant yàlla di ko sant ki nga xamante ne moom mooy sunu wayjur moom it mu nekk koo xam ne yow wax dëgg yàlla amul xaj ak seen ci kenn yéen itam seen taxawaay rafet na ndax lii la nit mënal moroomu jullitam mu am naqar mu ànd ak moom mu am bànneex mu ñu moom loolu moom la nit mënal mbokkam mm-hmm. te wax dëgg yàlla itam loolu def ngeen ko kon ñu ngi leen di wax na yéen itam siggi leen seen wàll ndax Baye Modou kenn ku ci ne mën nga koo jaal sa bopp ndax Baye Modou Baye Modou ñëpp la kenn ku ci nekk da nga caa amoon cër te cër ba nga ca am def nga ko na mu ware dox nga ko namu ware kon nag loolu lépp ñu boole di sant ñëpp di ñaanal ki nga xamante ne mooy le président de la république monsieur Macky sàll lépp li nga xamante ne mu ngi koy yootu ci réew mi yàlla jottali ko ko yéen ay jàmbaar ngeen bu mu leen bu mu leen fàtte bu mu leen xeeb na leen fonk na leen jox seen cër ndax li war ci terrain bi yéen a ngi koy dox di ko wax di ko def ci nit ñi di ko wax ci nit ñi dëgg la daanu daa dajul fépp waaye kenn ku ne xam na ne yéen ay jàmbaar ngeen bu gis bu ngeen gisee ñu ànd ak yéen itam am ci yéen yaakaar xam seenu ñeme ak seenu nangoo liggéey ak seen bëgg askan wi moo tax ñu fas ñu laxasaayu ànd ak yéen di liggéeyandoo ak yéen xeebuñu leen ci dara